Salut les amis de e-sport TV, merci encore Gaël, la confiance en nous voler, merci de du like, merci de d'abonner, merci également du bail ni commentaire, hein. toujours plaisir Gaël de vous servir, de voir ngeen wéy di cloche de notification bi avec des partager vidéo moi qui sénégalais comme toujours hein, qui est connecté à l'hôpital hôpital yi le wala ci kër il suñu borom yàlla na fëgg si bopp nga wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi suñu borom génn leen fa ñi dëddu àdduna suñu borom xaral leen àjjana fi daw si mbokk yi nga xam ne également ñi ngi ci gox yi nekk ci Sénégal yëpp ah hein, bàyyi benn gox euh, religion yëpp ah hein, chrétien musulman et tout gox de di leen wax gars ñu ngi ja jëfal en Afrique aussi hein muy zone Afrique bi yëpp hein quand tambalé ko Mali Mauritanie Guinée Cap Vert ah hein, ñëpp hein. Gambie Maroc partout hein Tunisie ñëpp di leen di jaajëfal aussi ña nekk ca Europe États-Unis Afrique Asie ñëpp hein Amérique di leen ko wax aussi gay on avance ensemble toujours un plaisir du ñu fàtte mbokk suñu mbokk militaires yi soldats yi médecins yi et tout nekk ci hôpital yi ci terrain bi di défendre li nga xam ne mooy intégrité national ak aussi Sénégal ak di faj eh, ñi nga xam moy doomu sénégalais yi jëm ci également VAR bi hein, toujours plaisir gars yi di wax ci VAR bi di jajeufal toujours hein ñi nga xam ñu participer di wax le plus important gars yi mooy nañ participer dans la dans le respect et dans la discipline du ñu mer mer mer ñu xool cadre yi ñi wax gars yi mais aussi basketteur yi fàttewuñu ñen Kevin Durant gars yi qui devient aujourd'hui le premier joueur des Nets bi nga xam ne nekk joueur Nets bi njëkk bo xamné enchaîner enchaîné trois matchs yo xamné à 50 points le Nek mu nek une première dans l'histoire de la NBA mais aussi VAR bi di benn jeune bo xamné mi ngi ci euh, abonné e-sport TV là ah, momo envoyé demb image bi mu def ko di jeune bo xamné également jeune bu talentueux la wax rek aujourd'hui moy gars yi képp koo rek jeune nga am talent at bo mënti am bu la kenn gëmloo ne noo nga mëno développer yenn yi gëmal sa bop xamné lo loo doon mu mag di ndaw mo gëmé sa bop rek di nga avancer tu n'as pas besoin forcément de travailler pour des jeunes Alioune Badara Faté également dembou wa jaraf décoré ko du rafet aussi pour également service rendu à la nation mais que je xamné représenter na li nga football local nampalis Mendy gay nampalis Mendy donc hier aussi defaat match bu a baax nampalis nga nga donc 58 ballons touchés 93% hein, 93% de passes réussies hein trois interceptions nga def ko am note de plus de 7 nampalis Mendy hier nek parmi les meilleurs joueurs de euh, Leicester di wone aujourd'hui mom équipe nationale jigadiwu wuko ben et loolu dinañ ci C'est qu'un ci kanam euh, également inquiétude rek mo amone ci nga xamné moy Edouard Mendy mi doon jàpp genou bi mais plus plus de peur que de mal dara mujj ko jot hein. donc euh, mu joué na match bi donc Edouard Mendy ba mu malheureusement comme je dis hein, donc euh, dañoo perte mais loolu ça fait partie du sport et aussi N'Golo Kanté bi joué 250 e match hein, en apparition en Premier League nekk loo aujourd'hui aussi dañ ko koy euh, féliciter parce que N'Golo Kanté nekk qu'un joueur boo xam il est très humble mais aussi c'est le meilleur milieu défensif actuellement dans le football Karim Benzema aujourd'hui moom di woy di wane boppam 35 matchs 34 buts passe décisive, toute compétition confondue Benzegol le joueur de Real de Madrid nga xam ne Cristiano Ronaldo jógee ba léegi moom mi ngi woy di wane boppam di imposé wu kii nag gars Zlatan Ibrahimovic moom dafa wax loo xam ne lu ci Manchester nee na Manchester bu fekkee ne jigéenu euh, FC Barcelone yi nga xam équipe FC Barcelone jigéen ñi ah, même bu fekkoon ne dañoo war na lor gars yi ñoom ñoo mën équipe bu Manchester bu goor ni donc lool nak Zlatan moo wax ki ngeen gis ni di Layvin Kurzawa Kurzawa gars yi moom dafay insister pour toog Paris Saint-Germain mais ba saison bi commencé ba légui gars 9 neuf minutes rek la joué gum neuf minutes le joué gub nekk na go xamne ne fi mu Paris Saint-Germain bëgg na ko fa jógee mais moom bëggu fa jógee ndax moom euh, koppar gi nga fay fay la ki nak di kii Kylian mbappe selon les informations Paris Saint-Germain mi ngi insister ba tey bëgg ko prolonger lo et l'homme li ko promettre sax wala liñ ko bëgg a promettre mooy bëgg prolongé la ñu yokk léegi mu nekk capitaine bi Marquinhos doot ko nekk moom Karim Benzema moo koy nekk war na ko yaay yor léegi caabi Paris Saint-Germain et du côté de Lille hein Gor Gourvenek ngeen gis mu entraîneur Lille ak ki di Adem Ben Arfa ñoom nag selon les informations dem bo match bi jeexee doom sen jongante dem ñom dañoo don jote jote yu metti sax si li nga xam moy vestiaire yi diggante Ben Arfa Camara ak ki nga xam ne mooy donc Gourvenek Madison James Madison mi ngeen gis ni yi donc nekk fa nga xam ne moom mooy ca Leicester bu kii di Nampalys Mendy moom it boo matul dafay jóge fin de saison ndax actuellement. club yu bari ñu ngi koy également c'est un joueur il n'est plus à présenter aussi nekk international international plutôt anglais joueur de Leeds actuellement aussi hein, Philips Nathan Philips donc actuellement aujourd'hui aussi gars club yu bari ñu notamment West Ham mi nga xam 60 millions Aston Villa plutôt pour def ci 60 millions ki ngeen gis aussi c'est un joueur de Torino hein, un attaquant de Torino l'international italien moom nag actuellement nee na dafay jugee fa nga xam ne mooy Torino mais bu fa jugee dafa bëgg a dem fa nga xam ne Milan AC Milan daal la bëgg jouer joué Aliou Cissé gars yi def na déclaration ñëpp gis ko ah wax ci bi nationaux yi né mom mi ngi waxtaan ak bi nationaux yi comme nous ko mais aussi bi nationaux ñoo wara jël décision maintenant, aujourd'hui damay def ben analyse parce que aussi il faut que ñu comprendre bien bir moy ko né contre ñu kenn encore une fois bu buñ pas ñeppay ñëw joueur équipe nationale Sénégal mais il faut aussi ñu xam envergure bi équipe nationale Sénégal am il faut aujourd'hui ñu xam Sénégal Sénégal tolluwaay bi mu am donc maa ngi gis benn commentaire dem gars tu tu as été xaw un peu euh, virulent ñi ne nga un peu agressif je ne suis pas agressif gars il faut dire les choses telles quelles on ne peut pas être plus royaliste que le roi des joueurs comme Boubacar Camara le Sénégal en a besoin ñëpp d'accord nañ Sénégal soxna joueur mel Boubacar Camara mais aujourd'hui Aliou Cissé c'est mu mën a def mettre ko de contacter ko waxtaan ak la dernière décision appartient à qui appartient aux joueurs mais aussi équipe nationale du Sénégal gars du du du passe partout Diego ci wax du n'importe quelle équipe on est champion d'Afrique on est également qualifié à trois reprises à la Coupe du Monde le cas de Sofiane Diop pour man aujourd'hui je l'ai dit et je le répète Sofiane Diop pour man pareegul pour nous équipe nationale du Sénégal c'est un avis propre waxuma am avis personnel parce que joueur boo Sénégal mi Top ah jox naa wax naa ne peut-être li li mu nekk euh, yaayam nekk marocaine papaam nekk euh, sénégalais moo peut-être moo tax mu bañ a frustré kenn mu ne na xaaral ma équipe nationale France mais li ñu gis ni mooy actuellement Sofiane Diop moom saa yu ko équipe nationale France espoir wooyu day dem d'accord day dem day jouer alors que tey a une possibilité jouer coupe d'Afrique on a la possibilité jouer coupe du monde maintenant ñu duñ ko forcer ñu nga ko jëlee sa temps mais dañ bo jëlee sa temps ana ben moment bo xamné aujourd'hui Sénégal day dem ci yenen joueur L'exemple le plus patent moy Ibrahima Ba Ibrahima Ba son père est un international sénégalais Ibrahima Ba il a opté pour jouer pour la France euh, coupe du monde en 1998, selon les informations à l'époque, ak li Zidane information ñu à l'époque je précise Zidane mon ne qui euh, est la bëggoon mu dem donc euh, c'est son ami dama jégalu le joueur bordelais dina ñëw ci kanam la bëggoon mu dem moo tax euh, euh, Demba Ba demul alors que Demba Ba à l'époque moom il était parmi les joueurs yoo xam ne donc il était parmi les meilleurs attaquants yi nekkoon foofu ca France ki nga gis ni Issa Diop Issa Diop dafa toog devant la euh, devant la télévision française Canal ne moom il se sent beaucoup plus français que sénégalais que ne moom équipe nationale France lay xaar ana Issa Diop tey gars yi du ma ne ba tey mënul ñëw équipe nationale de France mais gis ngeen ko déggatoo ko et pourtant c'est un excellent défenseur Issa Diop défense défenseur bu taxaw la mais tey foog gis fu mu dem waxuma Sénégal moo ko jigéen de mais que ne tey Sénégal dafa nek vitrine bo xam dalay jaay da lay niveau bo xam ne gars yi fa egg Benjamin Mendy c'est l'exemple le plus patent gagné la coupe du monde gars amna ay déboires ay problèmes de viol et tout man je ne je ne conçois pas ce genre d'acte d'accord ma ci limu def et tout mais tay da nga dégg kenn kenn kenn soutenir ko benn France soutenir au contraire ñoom ñi ngi jéem a fexe lépp lu ñu mën pour effacer ko un peu de l' équipe nationale de France tu vois donc doo dégg benn joueur bu génn def wax sax ne même bu fekkee lu def du yoon et tout et tout erreur la ñu ngi xaar li wëg li doo ko dégg donc aujourd'hui lui c'est un sénégalais d'origine anamu tey le seul sénégalais wala bi nga xam ne gis nañ équipe nationale de France moy Patrick Vieira parce que Patrick Vieira à l'époque dafa imposé woon dafa nekkoon jour boo xam postam amul mais tey France booy c'est possible yëpp ay concurrents aujourd'hui Kurt Zouma ngi nii jeune équipe nationale de France mousse gars yi jéegul jox mais mousse mousse motax <laughs> ñu génn ko équipe nationale de France parce que dafa d'or Moussam d'accord euh, peut-être ñeneen acte de voilà mousse la war ko def yéen mais mousse motax ñu génn ko équipe nationale Adams le grand Adams kii amul lu mu deful équipe nationale de France bam duggé dans le coma ba légui anam wàcc na liggéey da nga dégg gars yi rendre ko hommage seneen ñu koy wax feneen ak feneen déggoo donc aujourd'hui rien n'est plus important que de jouer pour ton pays Khalilou Fadiga ngi ay temps il pouvait jouer pour la Belgique dafa ñëw jouer équipe nationale du Sénégal Taï fierteem fa dégg fu te ko mënta équipe nationale du Sénégal moom de tax Belgique fu mu ko il représente bu représente il représente le drapeau sénégalais Taï bu koy on l'invite en tant que sénégalais aujourd'hui son fils il joue en Belgique son fils également qui a beaucoup de potentiel de potentialité plutôt mais aussi des gën a progresser bu bëggee prétendre ñëw équipe nationale du Sénégal mais vous n'avez pas vu Paris forcer cela Abdou Diallo ngi c'était le capitaine de l'équipe nationale espoir Fils Sofiane Diop nekk tey Abdou Diallo moo fa nekkoon Konaté ngi nii si ginnaaw ngeen gis ko ñii nii France lañ mais Abdou Diallo moom moo jël décision def intervenir man maa dem ba ambassade France ne dama ambassade Sénégal plutôt dama bëgg changer sama dama bëgg a am sama nationalité euh, sénégalaise defar sama passeport ana mu tay mi équipe nationale ki ngeen gis nii di Mbaye Niang bu nga xam pour man Mbaye Niang mom daf ñoo yàpp entre guillemets Mbaye Niang nekk ci ay problème nekk ci guuta ñu wax ko moom mu ne du du sénégalais et tout français la ba mu ñëwee Sénégal ba mu amee problème dem amatul club ñu koy abalee club club dafa ñëw Sénégal ba mu ñëwee Sénégal gars yi ñu yóbbu ko coupe du monde yóbbu ko coupe d'Afrique mu commencé am benn valeur nekk ren di wane boppam mu jéeg saa ne lan non man Sénégal damay jël sama temps pause ak yàlla may ñaa tey mu ngoog donc Sénégal c'est sacré Didier Deschamps lu mu fi def Kalidou Koulibaly pour man c'est l'exemple aussi de la fierté sénégalaise Kalidou Koulibaly ba mu nekkee au summum de sa carrière ñëpp naan Kalidou Koulibaly Koulibaly Koulibaly dafa ñëw équipe nationale du Sénégal Deschamps def liste ba pare naan am na joueur yoo xam mën nañu doon équipe nationale sax muy ki nga xam moy mooy Koulibaly gars yi na ko déedéet Koulibaly da ngaa jum Koulibaly dem na équipe nationale Sénégal donc tay Koulibaly regretté wu ko il a soulevé la coupe d'Afrique Hein? Il a joué la, Coupe du Monde. Il va encore jouer la Coupe du Monde. On lui, on lui souhaite ni ko ñaara moy mu Coupe du Monde bi ni ak jamm ak salam Djolko, ko le trophée pour la première fois un pays africain Djolko, ko et le Sénégal pour le faire. aujourd'hui Koulibaly aujourd'hui kérok def na vidéo pour voir lan au-delà de Aliou c'est pour vous dire que même les joueurs nous avons ñu les joueurs na joueur contacter yenen joueur mom ak Bouna Sarr. aussi c'est un exemple de ci aussi ci ñom ñoo def vidéo wax ki nga xamné moy Boubacar Kamara ñewal bo jouer ak ponkali bëgg gagner Edouard Mendy il a la double nationalité même pour ne pas dire la triple nationalité parce que Guinée également a une nationalité à la base donc Edouard Mendy Taï, buñ ko double nationalité. Sénégal Sénégal moko jox ben valeur bi mu jouer coupe d'Afrique jóge fa dem bi club bu mel Rennes jóge Rennes dem Chelsea wane fa boppam nek fa meilleur gardien du monde actuellement gagné coupe du monde euh, plutôt coupe d'Afrique coupe du monde Amine, amin coupe du monde gagné li nga xam moy coupe d'Afrique meilleur gardien africain ki nga gis ni di euh, Pape Alassane Gueye Pape Alassane Gueye dafa jóge euh, dafa ñëw équipe nationale Sénégal joué coupe d'Afrique dem Marseille mais mais le gars boy, bi fi mu toll niveau bi gars machallah antenam genn entraîneur génn ki nga xam moy Pape Alassane Gueye ba mu Sénégal ba légui ñëwaat fi dafa benen dayo bu ko jox il s'est imposé nampalis mendi daan won jouer dans na mais équipe réserve la doon joué tay mi ngi imposé wu équipe A ba entraîneur am man maa ngi regretté dama ko jugewul won tay egg na benn niveau bi nampalis day jugee Leicester bu coupe du monde ñoy mu jouer ko Gambie bref dafay jugee Sadio Mané à Liverpool ainsi suite donc aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal est devenue une vitrine ñun waruñu daw ci ginaaw kenn li Aliou Cissé waxoon benn jour moy deug tay Sénégal ah jigen la bu jek bu taru Hmm? bu dee jongama wala taay fi xol ko leen bëgg ban façon ngeen bëgg mais ni ñi ñoo koy ñoo koy célibataire la ah donc kër gum mu dugg ñëpp ne awiye ah gars yi ñoo ko soxla mais moom soxlawul kenn tey Sénégal non lay taxawé Nampalys il a joué pour l'équipe de France Bouna Sarr taxaw na fa ay temps momi ne je me je me sens plus français que sénégalais ah ba mu ñëwee fi benn moment ñëw équipe nationale Sénégal ay ah, gis ngeen ko légui Bouna Sarr àgg na benn niveau bi même bu fekkee né joué Bayern ba mu démé accueil bi ko Bayern accueillir nu démé demee il va quitter le Bayern à la fin de la de la saison inshallah rabbi donc tay ñom ñëpp ils vont jouer la coupe du monde tay joueur bu ci melné euh, euh, comment dire Sofiane Diop mën na ñëw s'il veut venir je le dis s'il veut venir il peut venir mais on a des jeunes joueurs yoo xam également fii bu ñu leen ay le jeune Sakho il a été formé à Djabar, jaar FC Taiming mi FC ah, Samba Diallo yeneen joueurs yoo xam ne de leen tudd de waxuma mais joueurs qui xam ne fii lañ leen formé ñi ngi nekk Sénégal ne ils sont pas plus moins moins moins moins méritants que les nekk C'est il a eu la possibilité d'avoir une autre nationalité dafa au Sénégal donc au Sénégal comme on le dit c'est un peuple un but une foi Tay, nous sommes les lions de la teranga les lions d'Afrique aujourd'hui un autre exemple à l'heure au niveau de la Côte d'Ivoire à l'heure français le joué équipe nationale France espoir Tay, dafa Côte d'Ivoire ñu koy au niveau de son équipe Tay, hein, ah, moom mooy fa meilleur buteur mooy actuellement meilleur buteur Ligue des Champions donc aujourd'hui c'est des choses yoo gars yi ko fàttee ñun sénégalais yi bu ñu gëmul suñu nous sommes du gëm ñun sénégalais tay buñu bu né ne ñun amuñu amuru défendre suñu patrie buñu top ci kenen Sofiane Diop est un fils du Sénégal. On l'aime plus que tout. Mais quand il devra venir, il devra venir. Le Sénégal ne fait pas de complaisance. Que les meilleurs viennent. Kounioul aussi. Tant pis, comme on le dit. En tout cas, les gars, wayland like, wayland abonner. Toujours un plaisir de vous servir.